ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal si taamu bi ngeen taamu seen chaîne Equivox TV ñu ngi fi nga xamante ni mooy palais de justice bu Dakar fi procès Abdou Karim Gueye war a am tey ji nga xamante ni mooy lundi 3 mars 2019. parce que suñu euh, yéene ak ñu objectif mooy a ce que Abdou Karim retrouve la liberté parce que ñun jàpp nañu il ne méritait pas fi mu nekk ne nekk prison parce que aussi comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un euh, un de mes confrères c'est quelqu'un euh, ka dañ ko war a féliciter d'abord parce que aussi c'est un lanceur d'alerte dans une démocratie on a besoin de ces gens-là ña nga xam ne tey say suñu gisee nii ñoo ngi violer seen droit surtout droit ba nga xam ne c'est constitutionnellement garanti suñu constitution moo ko garantir ay nit parce que ils ont le pouvoir yaa ngi comprendre yaakaar nit duñ fi jogee di def lu la neex moom mu am courage di dénoncer loolu je pense que kooku dañ ko war a féliciter mais kenn waru ko ñëw di ko andi fii mu nekk Mais heureusement quand bon, le juge a pris une décision de sagesse. Même s'il a retenu sa culpabilité, quand il, a, il, va, il, retrouver la, sa, sa liberté. Non, amul infraction parce que ñun ñëpp xam nañ lu tax amul infraction parce que moom amu wootewul ni kaa leen manifester wala kaa xeex wala kaa leen sànni xeer wala kaa leen gaañ ki que ce soit dafa ñëw rek woote si jàmm si jàmm waxul kenn mu andi paaka wala mu andi yet wala mu andi jaasi wala mu andi dara dafa ñëw rek ni kaa leen toog ñu waxtaan moom loolu rek moo ko taxoon jóg que si loolu waruñu waruñu ko si mën a condamné voilà loolu defe naa lu leer la quoi kenn waru ko si mën a condamné parce que jàmm rek la doon wootee te kuy woote jàmm yaakaar naa ni man aussi kenn waru la euh, woo di la euh, di la di di la condamné di la dugal kaso wala di la di la di la di la vraiment di la teg ay daan yi xam ne jaru ko quoi loolu la laa si amoon li may wax